m asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne si ni yéenay bàyyi xel seen site bu mag bii nii di xidmatul xadim tv ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara waaye di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di ziyaara mbooleem ñi nga xam ne si ne tamit ñi ngi bàyyi xel xidmatul euh, xadim tv xam naa mu mel ne tey danoo seet seet seet si gan goo xam si ne gan gu màgg a màgg a màgg la ñu koy wax Serigne Moustapha Sy boroom sañ-sañ sëriñ Moustapha Sy borom sañ-sañ tey leen moom lañ seet si ngir waxtaanee mu ak moom ci wàllum ñaan mu ak wàllum xilmul asrar ci wàllum seet ak yu demee noona kon incha allahu danañ xuus ci moom ak moom ci lu baree baree bari lépp loo xam ne si ne bëgg ngeen ko xam ci wàll woowu wala ittiwoo ngeen ko ci wàllu woowu incha allahu tey Serigne Moustapha Sy dana ko leeral kon ni ñuy def rek mooy daal di nuyoonteeg Serigne Moustapha Sy bu ko defee mu daal di nuyoog mbokk yi xam ne si ne ñooy bàyyi xel Xidmatul Xadim TV Serigne Moustapha yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, sëriñ Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu ñi may seeraan ñëpp moo xam fu ñu mën di nekk ci àdduna bi di nuyu itam waa télé bi di rafetlu seen tànk yi ngeen jéegu ñëw ci fii ci kër gi di ziyaar itam xalif seen roo yi nekk ci biir réew mi yëpp euh, di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa al di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te dëgëral ko ba mu yeggale naalam incha allahu. macha allah jërëjëf euh, Serigne Moustapha Sy euh, ñi ngi am mbégte bu baax a baax ci jataayoo ak yow xam naa di leen wax ni xidmatul xaddi moom képp koo xam si ne indi nañ ko fi rek ngeen xam ne koo xam si ne seet nañ ko ba seetaat ko lay doon nga xam si ne borom xam-xam lay doon kon mel na ni kon sëñ Moustapha Sy mii dana nekk koo xam si ne borom xam-xam la ci wàll wi nga xam si ne moom lay yëngu kon xam naa laaj bi la njëkk laaj rek sëriñ Moustapha Sy mooy. seet moom moom dégg naa ñu naan sëñ Moussa si moom mën naa seet lool lool lool waaye ñu baree baree bari xamul lan mooy seet ñu doon laaj sëñ Moussa si lan mooy seet maam boo ñu ko mënoon a wax ci gàttal. waaw seet moom dafa bari nu ko nit ñi di defee te mu wuute am na koo xam ni doom day seet ci téere am koo xam ne day seet ci ndox. am koo xam ne day seet ci suuf am koo xam ne mën na seet sax ci kurusam gii kon seet ay façon la am na koo xam ci petaaw lay seete kon seet lu bari façon la waaye li ci am solo rek mooy man seet lu ma yàlla dimbale la damay faral di wax ni euh, képp koo xam ni yàlla narul sa aajo faju maanaam moom doo fi ñëw ndax bu ma la seetalee dinaa la gis taman it du ne laay seetee kurus mën naa koo seete ça dépend xaal bi ma fekk rek mën nga maa fekk ci xaal boo xam téléphone sax laa seetalee wala mën nga maa fekk xaal boo xam tamit du ma jëfandikoo dara dama lay xool rek di wax li ci ne ci yow man nga maa fekk ci xaal boo xam ne nit ndox laay préféré pour seetee la ko man mën naa seete ndox dinaa seete course dinaa seete suuf dinaa seete téléphone dinaa seete lu ne danaa ko seete. Ah, xam naa li ñu laajaat foofu rek mooy maanaam ndax képp kuy seetlu si day ñëw ba ci yow nga seetal ko wala mën ngaa jokkoo nit téléphone comme ni nga tuddee téléphone noonu ndax mën ngaa jokkoo nit téléphone nga seetal ko ci gis ko. waaw ci bu wér ndax fii ñi may seetloo sax daanaka te nekk bitim réew mënuñoo ñëw wala sax ñu ne ci biir réew mi ne ci ne ki kilifa jug yomb leen dafa bari seet en distance. Mm. toog fi nga toog ma wax la lu wér loo xam ne du la gis. loolu ma dem te ñëw te man sama seet du jar ay xaaral ba suba amul fanaanoo jooni jooni waaw waaw jooni jooni danga may woo rek ma wax la sa so ma wax la li tax ngay laaj waaw foo mën a nekk nag laajuma ay loxo laajuma dara jox ma sa tuur ak sa tur jaru jigéen kese mu laa soxla ma wax la li nekk ci yow lépp te man sama seet nekkul ne day génnee li liy bëgg a ñëw li tubaab naan futur man sama seet day génnee passé di génnee présent di génnee futur. ak liñ tollool ak liy bëgg a ñëw arab di ko wax maadi ak mudaari ak mustaqbal man sama seet lépp lay génne dama lay wax la nga la nga dund te te la passé wax la li nga tollool wax la liy bëgg a ñëw ah loolu nag moom xëy na may su borom la. macha allah mu mel ne laaj boobu kon am na solo foofu leeral nga fi lu am solo kon xam naa day jàll rek ndax liñ bëgg a leeral moo bari moo tax euh, day jàll bu ko defee wàllum ubbeeku mu mel ne dafa am ñu bari ñoo xam si Euh, mu mel ne suñ borom may na la ci wàllum ubbeeku suñ Moustapha si wàllum ubbeeku maanaam ku ko bëggoon noo koy defale incha allah. ubbeeku moom maanaam tey tëju ku mu dal yaay soxla ubbeeku tëju moom dafa bëri lu koy waral bi si njëkk bàkkaar yu bari mën na koo waral am na koo xam ni mën nay def bàkkaar sax du tëju te du tëju mais raw xaan yi bokkul looloo tax. ku ci ne sa waxaan lay lay lay sukkandiku xam boo defee bàkkaar day da ngay tëju wala tëju daa am koo xam ne rawaxaanam leer la ci leer lay dox bëggul lëndëm am koo xam ne rawaxaanam bañul lëndëm léegi nag mooy yàlla mën naa waral tëju liggéey bu bari sa yaram it mën naa waral tëju cat bu bari it mën naa waral tëju tëju lu koy waral dafa bari waaye li ko gën a waral nag suñ jamono jii mooy cat waaw. lu gën a war a tëju si jamono jii bu doon tey téeméer ni yoo jël juróom-ñett fukk yëpp cata leen jàpp moo waral mënuñoo am dara xam naa dinañ ci ñëw ci kanam cat moom danañ ci ñëw. waaw kay mhm. nga xam si ci ah. yéeme. yéeme sax. Hmm. te dama lay appal jour waaw. ki gën a dëgërle. Mhm. nga xam ne maanaam mënut a am dara dara dara dara su ma jëflanteeg moom juróomi fan. Mhm. juróomi fan li gën a tuuti juróom ñetti fan la. li gën a bari ci la may jëflante yow nga dellu na nga mel na nga meloon di nangoo gauche ak droite xéewal dina la dikkee ba gauche ak droite maanaam ndeyjoor ak càmmoñ ba jaaxal la ku munta am dara dara dara maanaam ci loolu laa gën a aay sax koo xam ne maa na ba xamul fu mu jëm bu ñëwee fii ma saafaral ko ko te ji moom yu yéeme laa ci yor yu yéeme yéeme sax yoo xam ne moom di nga ubbeeku ba jaaxle ku ne lay jox ku la daawul jox foogee boobu dana la jox la jox mu neex ko mu naqari ko waaw. waaw macha allah jërëjëf Serigne Moussa kon yéen a ko dégg noonu euh, mu mel ne kon képp koo xam se ne wàllum tëju euh, sonal na la rek kon jo jokkoo ak Serigne Moustapha xam naa danañ joxe numéro yi sax si kanam incha allah su defee ngeen mën a jokkoo moom bu baax a a baax ndax moom am na ci xam-xam bu a baax su ko defee xam naa am na doon laal léegi sax xam naa ci la ñuy ñëw muy cat ah, Serigne lan mooy cat ak koo xam ni si ne cat da koo jàpp maanaam yan yan yan yan yan daase la ko mën a indi Serigne Moustapha cat daal ku mu rayul semmal la ku mu du semmal la te xanaa xamoo xarit bi la gën a jege sax mën na laa catu waaw hmm? ah da loo boo oto boo yor mun la ah sa sa oto bii sa sa nangam bii sa waay sa nangam bii fekk teg na ci bëtam làmmiñ bu bari boobu di ca topp nag bu yàggee du la jig damaa jël li lay gis feneen ak feneen ak feneen da saa nga romb ni mu ne ii kii otom bee rafet fekk topp na la cat li ñuy wax ne làmmiñ jigul sax garab garab bay jig nit cat ñi mu jàpp ci ci jamono jii li mu leen di yàqal amul leen lu ko yàqal ndax nit ñi ma wax la ko nag ndax man damay yëngu ci asraar dama yëngu ci ñaan di faj aajo doomu aadama yi ñi may dikkal xam naa leen li ci ëpp juguñu ngir liggéey kenn ma wax la ko nag waaw seeni problème bopp rek la ñi may seetal ñi ci bari it ña liggéey jàpp bariwut ña ca cat jàpp ëpp li ma la wax lu ma xam la kon bu kenn tëju mënoo am dara nga yaakaar ni nit la liggéey demal nga gëstu noonu dafa ku xamoon cat li li muy yàq ci doomu aadama. ndax ñoo xam si ne maanaam ñi ngi liggéey mun ñu am dara wala dara su ko defee ñuy xool nit bët naan ko moo ma def nangam nangam te fekk na boobu amaana sax kooku def ko dara waaye lay doon rek. moom laa lay wax noonu loolu mooy li wér. Hmm. defuñ ko dara cata ko jàpp rek. am na nag ñoo xam dañ leen liggéey waaye bëriwul li ma ko waxee léegi juróom fukk yu jël ci téeméer yi. Hmm. cata jàpp. cat nag bu la hmm. maanaam mën na laa def ay feebar. mën naa taxit doo am dara waaw loxo bu bënn it mooy ko xam ne lu mu yor million bu mu yor bu ne ci lii laa koy dugal bu subaa mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mes du xam fu mu jaar cat day waral lu baree bari cat day tax ku la dig sax du la jox ku la sax du la jox cat day dëgëral ay mbir mën nga dem déposer ay kayit ñu war laa mën a accepter ci lu gën a yomb fekk ca dafa jaar dëgëral ko ba yow say mbir doo xam nu mu demee léegi nag loolu nag ku mel ni man rek moo ko mën a xam. nga ñëw ci ku seexul asraar koo xam ne xam na lu ci nekk lan moo koy sabab li ne ci yow mu xam lan la lan la doon parce que itam nit mën na laa seetal tamit mais pour mu wax la ko mais nam la koy waxee day du nekk noonu interprétation bi ñu ko wan ci seet gi du ko du ko mën. waaw te du am maam du la du mën a faj. ndax yow ndax yow maam ñi nga seetal xam ni ñii cat cataleen dal ndax loolu yow da koy faj yow. c'est très ma question bu am solo la loolu dafa bëri ñoo xam ni gis a cat gisa boo ko euh, mën a seet taxul nga mën a ñaan mën a ñaan it taxul nga mën a seet leen li si nekk bokkut ak moromam dañ koy jàngi seet lu ñuy jàng ginnaaw la nga xam ne nag suñu borom may na la ko ca nga am ñuy wax kasfu loolu mag looy jaamu yàlla la ba su borom defal la ko ndax suñu borom dafa wax ne wattaqullaah wa ya'lamukullaah yàlla neen ku ko ragal ku ne moom mu xamal la loo xamatoon léegi nag loolu xam-xam boobu la yàlla di jox na nga xam ne jaarul ci kayit ak daa xam-xam boobu mooy ilmul kasf nga xam loo gis man nga caa xam lu la kenn dul wax sama maam sëñ Maxtaar Penda si moom la yoroon ba keroog Seexu Xadim bi mu ñëwee ci moom sëriñ Tuubaa ba nar a gàddaay dem gànnaar mhm. sëñ Maxtaar Penda si bu mu ko gisee da ko xool rek nekkul ne sama xel xam naa ko bul ko def sëñ Musaa Ka mhm. mi nga xam ne mooy werekaan way ko ci ay abiyat si Musaa Ka dafa wax ni mhm. ba daam demee tàggu sëriñ Muxtaaru mi ngi ci moxtaar pend mi sama maam dana ko bàmba yaay doonay moxtaaru yëgal ni yaay doonay rasulillahi yaay ar mu xarnu bi fi nun billahi daana ko gis naa la gis naa la ngay bëgg a siyaara ji màkk mm-hmm. ak tay ba ta waaye saxal fa mbàkki gis naa la ngay bëgg a dem ak sa mbóodi mm-hmm. gis naa la tey mm-hmm. ngay bëgg a ak sa mbóodi ngir bañ a feeñ waaye yoral njaboot yi gis naa la ngay bëgg a niroog bii daani gànnaar nga jëm waaye yoral suudaani gis nga buñ ko toppee day jël kii bi bu ñu ko toppee maam day day day kii macha allah te loolu dafa am solo lool lool lool kon day wane ni kon maanaam lii loo loo xam la waaye ni nga waxee noonu rek sama am ju baax jooju macha allah yàlla ñu ko suñu borom fayal. kon xam naa képp koo xam si ne bëgg ngaa jokkoo Serigne Moustapha Sy rek da nga koy woo ci 77 666 70 85. 77 666 70 85 wala 76 608. 36 86 76 608 36 86 képp ku jokkoo ak moom rek incha allahu sa aajo dana fajo kon bu ko defee xam naa day jàll ci laaj rek koo xam ni dafa bëgg am ay kayit sëñ Moustapha ndax dafa mel ni bari na ñoo xam si ne day bëgg a tukki wala yu demee noonu waaye ay kayit daal da leen di jafe lool lool lool te ñu dégg nag wax dëgg yàlla yow moom ku ci yàlla suñu borom may la muy wàllum kayit. moom moom dama ciy joxe délai ba bokk ci yi nga xam ne mm-hmm. dama ci dama la ciy jox délai mm-hmm. kayit. waaw dafa bokk ci yi nga xam ne ma naan la nangami fan demal nga demal nga jëli say kayit boo ko déposé gul demal nga déposé ko dina la jox kayit moom engagement bi ma ciy jël moom dama ko ñeme te képp ku ma jëfandil ci kayit nga dem li ma la wax gisoo ko ma delloo sa xaalis te yaakaaruma ko it nag fii koom ku aajam na tafajul du fi du ma xam ba fiy ñëw wala su ma woowee du ma jot wala su ma jotee duñ juboo ci kàddu fii ku na nar a faju rek moo fi ñëw. waaw ndax loolu dafa mel ni tamit ah, am na yu ma gisoon yu ma dégg ñoo xam si ne ñëw nañ ci yow waaye loolu lañ seede danoo seede ni wax dëgg yàlla ba ñu jëflanteeg yow seen xol sedd na kon lool moom li nga wax ni. kon mu mel ne sëñ Moustapha xam naa am na loo xam si ne moom bëgg nañ la ko laaj muy wàllum nopp ñu la laaj ba xam yan yow yan xeetu nopp nga yor ndax dafa mel ni bari na ñoo xam si ne da leen di dal wala bari na ñoo xam si ne day koy jël di ko teg nit. ay nopp nopp <laughs> daf de ndeysaan maam nit ñi day ñaare bëri na ñu naan mën nañ ko waaye nopp yombul de waaw man day fatiha xam naa ci trois cent soixante quinze façon ci yoo xam ne nopp yoon yoo xam ne mën naa cee nopp nit fatiha kese ñëwaguma sax ci yeneen yi waaye jëmi fatiha kese xam naa ci trois cent soixante quinze yoon yoo xam ne mën naa caa jaar nopp nit ki noob yi ma yor moom ñetti fan mooy li gën a bari su dee da ngay nit maanaam bëgg kaa wax sa soxla mu mu mel ne ku la ku la génnee ci xelam rek ñëwal hmm? ma dafa la loo xam ne ñetti fan soo ko woowee mu jël la loo ko wax it mu ne waaw foofu laa ci yem fii ñu fi ñëw moom xam nañ li ci nopp moom fii. macha allah macha allah jërëjëf sëñ Moustapha mu mel ne sax wax dëgg yàlla am na ñoo xam si ne euh, seede yooyu indi nañ ko te man dégg dégg naa ko ñoo xam si ne ñëw nañ fi jaar nañ fi wax dëgg yàlla gis nañ li ñu jëflanteeg yow ñëpp euh, seede yi benn la mooy li nga xam si ne moom mu nga leen defal wax dëgg yàlla seen xol sedd na si. kon xam naa mu Moustapha day ñëwaat ci beneen beneen beneen question rek muy ndax euh, ndax kaaraange bi nga yor yow ndax maanaam sunguf la soo xam si ko jox nit ñi wala. galaaj la goo xam si ne muy ay ndombaak yooyu noonu nit ñi day koy takk yow ban nga ci yor. man sama kaaraange am na ndomba. Mhm. dees koy sangoo. Mhm. dees dees de maam dees koy def ci jaaro jaaro. Ah. fi ne sama jaaro bii. li ma man mën naa ci limal tuuti. Mhm. fi ne jaaro. ku ma ko ci réew mi gisuma ko. Hmm? waaw jaaro yi ma yor man. ku ma ci réew mii gisuma ko. ku ne fa nag. commentaire ma ci. mais sama jaaro man. naa ko de. Ah, waaw. ku takk sama jaaro mm-hmm. wërsëg dina la yomb ba jaaxal la di nangoo gauche droite ku la daawul jox dina la jox hmm? mu neex ko ak mu naqari ko ah, am na koo xam tamit uh-huh. am na koo xam tamit uh-huh. boo gisee ñu may def takk di liggéey lu ñuy sangoo uh-huh. di liggéey it li ñuy naan mm-hmm. am na koo xam sawarul ci takk mm-hmm. am na koo xam sawarul ci sangu am na koo xam sawarul ci naan te nag nit ki boo ñëwee ne mën naa nangam waaye da fi nekkal ñëpp nag. waaw da sooraale sóoraale ñëpp da ngay sóoraale mhm. kii waaxu ak kii raam mhm. ki mën a dox ak ki a dox ñëpp ngay sooraale moo tax nag bu nit ki ñëwee mhm. lépp lu ma koy defal mu koy sangoo rek na yëg ni mën naa ko defal mu koy dakk hmm? te sama jaar yi li ma ci dëxëñ moom hmm? kenn mënu ko wax fi ne ku liggéey jàpp hmm. soo ko takkee mu dañ waa takk dugg sa baaraam bi képp tax mu dañ tee mu dañ waaw liggéey ku mu jàpp mu dugg sa baaraam moo tee mu dañ te kenn du la liggéey it jàpp la Ah, nga takk sama jaaro bii. Eh? maanaam dinga saf ñëpp. Eh? ba mu jaaxal lay baas boo dem dañ lay lijjanti bu la neexee bu lijjanti kenn foo dem diw diw ji dana la sonal eh? waaw wërsëg gi dana la yomb li naan loxo bën da koy saafara. Ah, mu ngi sa loxo bii. Mm-hmm. million boo yor dinga xam foo koy dugal am na ko xam ne mënut a denc dara. Mm. maanaam dajal dara mënu ko dajale lu mu am danaan mes. Mm. kon ki nga xam ne tey liggéey da koo sonal. Mm-hmm. man maay xool wan yoon laa koy jaarale bu ko neexee mu ñëw ma jëflante moom ci lu ñuy sangoo ñetti fan. ndax man samay samay samay samay samay délai li ci ëpp ñetti fan la. Ah, waaw ndax ma li ma lay jox dalul dalul dalul dalul dalul nekk loo xam ne dalay sonn man ñetti fan mooy sama dele loolu lu ma liggéey la ba suñu borom may ma ko. boo gisee ñu may woowee boroom sañ-sañ. Ah, man lu kenn mënut a def man moom laay def. Ah. fi ne man ci ki ma gën a gën a sawar. Mm. mooy ko xam ne dafa wër a wër ba dajal. saafara mun munu ko am fenn bu ñëwee ma saafara ko. lu mu mën a doon nag lu ko mën a jàpp. Mhm. jaaxle na wër na fu mu mën a doon fu mu dem na fu ne mënut a saafara bu ñëwee ma saafara ko. loolu moom lu ma jëflante ay nit ñi la ay nit la. Mhm. ba nit ñi dama ko woowee. Mhm. ndax engagement boobu dama ko jël te dama ci ay résultats. waaye nag lu ma liggéey la nag sama diggante sama borom ba yàlla may ma ko. tur yu ma yor lu ma ci lu ma ci sàkku yàlla defal ma ko. waaw xam rek sëñ ñi ma xam ñëpp uh-huh. ñi uh-huh. xam nañ ma kurus. waaw ku ko ñeme laa. ku ma ñemee jaamu yàlla la waaye kurus moom day sama waay ndax dama am lu ma ca yor loo xam ne lu lu nar rek moom moom laay woo musaafar wu léegi ma la samay dal si ëpp ñetti fan kese la mm. waaw ñetti fan macha allah jërëjëf sëñ Moussa kon yéen a ko dégg noonu noonu macha allah dalem bi gën a kii mooy ñetti fan wala gën gaa bari la xam si moo gën a bari mooy juróomi fan kon macha allah loolu kenn ku nekk xam ne yàggul ah, fi ñuy ñëwaat rek sëñ mooy ci wàllu néew kàttan ndax dafa mel ni di ko seetlu si jamono ji. moo mu mel ni bari na ñoo xam si di leen di dal waaye ñu bëgg ci ay saafara waaye ngir ñu am saafara bu wér ngir ñu am ko rek da di jafe yow sëñ Moustapha nan nga def ak loolu. dama koy faj. waaw fi ne nii lu jëm ci médecine traditionnelle. Mm-hmm. lu dul ki néew kattan. Mm-hmm. am mojoram di ko faj maanaam dama koy jàng nag ba maîtriser ko nag léegi dama koy jàng ba maîtriser ko. Mm-hmm. xam na ñuy fajee hémorroïde ni ñuy fajee estomac ni ñuy fajee ulcère ni ñuy fajee jabet lépp xam naa nu ñu koy fajee. ak façon boo ci man a yor it mën naa ko saafara waaye jot jotu maanaam di boole ñaar yi may def. muy asraar bi ak di boole maanaam jaamu yàlla gi. ak li ma war a tudd sama course gi lépp ma war kaa boole. ak di faj doomu aadama ñu may rang fii suma kër daanaka boo fi ñëwee ah damay man sax maa maa bëgg nit ñi di fi rangaloo parce que man loolu neexuma waaw damay bëgg it kenn du fekkante waaye su ma ko bëggee woon noonu bu ma neexee nit ñi di fi fekkante. waaw bëggeewu ma ko noonu man bëgguma tout le temps rek ma nekk ci nit ñi dama bëgg di moom sama bopp loolu moo tax sa choisir ma di def di def euh, médecine traditionnelle comme ku mu dal lu dul tële koo xam ne néew kattan da koo dal ah, ku mu dal mhm. ñëwal ma ma saafara ko hmm? duma la duma la calmer dama lay saafara Hmm. loolu kon leer ñu kon nag gars yi mi ngi noonu euh, loolu moom dafa mel ni bari na ci jamono ji lool te bari na ñu koy jàmbat kon képp koo xam si ne euh, bëgg naa jokkoo sëriñ Serigne Moustapha si rek borom sañ-sañ nekk fii ci Technopole euh, na ngay jokkoo moom ci 77 666 70 85 wala nga jokkoo moom ci 76 608 36 86 kon xam naa Serigne Moustapha fi ñuy ñëwaat rek mooy ci soxna yi. soxna soo xam si ne maam dafa toog borom kër tëkku lool lool lool lool lool euh, nan lay def sëñ Moustapha. nañoo gisee man rek. pour ñu bañ ca jël temps. nañoo gisee man ma lijjantil ko. macha kon kon kon kon soxna kon yéen a ngi dégg dégg noonu waaw macha allah. maam ku ku nañoo gisee ak man rek. ma saafara ko waaw. moom loolu moom daa bokk ci yi ma gën a yi ma gën a man moom. Ah. waaw nañoo rek ma saafara ko moom loolu moom rek tak jooni jooni ma lijjanti ko. waaw jooni jooni yooyu moom fii nit ñi duñ fi jóg ci loolu. macha allah ah. kon kon kon soxna yi kon yéen ko déggandoo noonu macha allah euh, wàllum bayra bayre euh, sëñ Moustapha wàllum bayre képp koo xam si ne dafa bëgg bayra sëñ Moustapha. Uh-huh. Uh-huh. bayre ay façon la. Mm. am na bayre boo xam ne yow lay topp yow. Mm. am na bayre boo xam ne place bi nga nekk lay topp. Mm. fi ne maa ngi bayre boo xam ne képp koo xam ne day commerce moo xam day jaay ak lu mën a doon. boo ko defee mu la ko defalee. ba nga def ko ci jëfandikoo ko sa place. 300 mm-hmm. mètres. Mm-hmm. yaa ngi dégg de. Mm-hmm. koo dendal 300 mètres moo xam ca kanam la moo xam sa ndeyjoor la moo xam sa càmmoñ la yaa ngi dégg de. lu mu naroon jaay da ngeen bokk yaa koy jaay yow balaa kenn jeexal nga jeexal. yenn saa gis koo xam ne place am dañ koy rax rek te yow ngay jaay la muy jaay te mënoo am mënoo jarle. loolu bayre la. boo demee marché Colobane gii ak Sandaga. waaw bëri ñoo xam ne sama bayre lañ yore. bayreem ñaar yi ma ci yor yu yéeme la ñoo xam dañ leen rang te fa jaar. yooyu moom. maanaam yàlla dama dama ma cee may. waaw bayru yu yéeme laa ci yor place bu dee jëmmi nit nag. moom maa maam xorom laa ne maanaam day mel ne cin luñ sotti xorom ak jumbo ak laaj ak yooyu rek ni muy safee. dama lay xorom ba nga saf maanaam bayra bu bu yéeme nga yor. foo dem nit ñi di la di la di la coow te man sama bayra ah, day ànd ak kaaraange. waaw du ma la jox bayra noonu rek nga dem ca topp la déedéet. Mm-hmm. déedéet bari na ci ñu faatu ñoo xam ne bayra bu bëree leen sonal. yaa ngi dégg. man sama lépp lu ma lay jox di ànd ak kaaraange. rawatina bayre boo gisee sama jaaro bi sax dama ci liggéey loo xam ne kaaraange da am. fi ne bu duggee sa loxo bi lu mu fekk sa liggéey da koy dindi te liggéey la jàppati. man lu may ma ci sóoraale kaaraange parce que kaaraange dafa dafa dafa jafe jamono ji waaw li yàqal doomu aadama dafa bari. bu ko cat jugee na le jinne yi na le ah euh, lu ne jugee na le ñëw daal daal sa kaw. amoo kaaraange làmmiñ topp la. ah nga naan man dama bayre fekk yaa ngi dajale cat boo xam ne bu naan buy explosé ngay ngay faatu fa yàlla. macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha mu mel ni leeral yooyu am na solo lool koy xam naa li ñu lay laajaat rek muy laaj bu gàtt euh, mooy sëñ Moustapha maam ku ko bëgg a seet si ndax yow fii rek ngay nekk wala am na bis yoo xam si ne day génn. waaw lu ci mel ni aljuma. Mm-hmm. du jëpp nag waaye yenn yi dinaa koy jullee ji Touba. Ah, Touba waaw fa koy defee aljuma. Mm-hmm. ndax ñenn ñi nga xam dañ may laaj. Mm-hmm. te nekk jam euh, boori Touba ak lu ko wër ma gën a bëgg lu leen gën a jàppandal moo tax damay choisir àjjuma ji man def ko Touba yeneen bis yi nag maa ngi ndakaaru gii bu soobee suñu borom ndax ndakaaru li tax ma choisir ko mooy mbooleem xeet yëpp mbooleem région yëpp am nañ fi ay ay seen représentant maam Dakar mooy ville bi nit ñëpp fi lañ nekk moo tax ma ñëw choisir ne fi waaye sunu sunu dëkk cosaan Touba la. Touba la mu nekk ginnaaw boo génnee dëkk yi nga xam ne si sama maam sanc na ko tubaa mooy dëkk boo xam ne foofu la ñuy nekk ñaaree àjjuma ci bu dee Dakar it damay nekk technopole waaye damay nekk it maris waaw waaye nag kuy ñëw ku nekk danga may woo rek ah, boo ma woowee dinaa la wax fan nga may fekk incha allahu. Ah, mm. kon kay képp ku bëgg a jokkoo ak euh, si Moustapha Sy borom sañ-sañ rek kon mën nga ko woo ci numéro yi muy 77 666 70 85 wala 76 608. 36 86 képp ku jóg bëgg a jokkoo moom rek boo jokkoo moom incha allahu sa ajo dina faju kon xam naa sëñ Moustapha mu mel ni kon xam naa agsi nañ fii war a yëkkate jataay xam naa kon sa kàddu yu mujj rek incha allah. yu mujj yi mooy maa ngi wax ñëpp di leen leeralal li tax ma génn di wax weesuwul dimbali doomu yi aajo bu doomu aadama mën a am ndax lépp lañ mën a leeral ci ci ab télé waaye aajo bu jaaxal doomu adama ak bu mu mën a doon moo xam sa néegub sëy la. moo xam sa bërëb liggéeyukaay la moo xam kayit yooyu la jënd mi dëgër la moo xam koo bëgg la bëgg caa jot mu jafe la hmm, moo xam cat dara sonal ak lu mu mën a doon lu mu mën a doon nag lu lépp lañ mën a lim ñëwal insha allahu rabbi boo jëflanteeg man doo ko réccu waaw ma saafara ko ndax loolu rek moo tax ma ma ma ma ma ne fi saafara aajooy doomu adama yi ndax loolu lu nu lu nu xam la lu nu yàlla may la it buñ ko fi ne ñu ko dem di wuti leneen it ñoo jaamu yàlla ci lu ëpp ci loolu ndax jafe-jafe daa bari jamono ji kon taxaw ci saafara ko farata la moo tax ñu génn kon nag maa ngi xamal ñëpp ni incha allah rabbi képp ku fi ñëw euh, di fi fekk xale yi dinañ la accueillir te it sa saafara sa soxla yit buñ ko mënut saafara dinañ la yebal feneen fii daal lépp luñ ñu engagé ba ne na mën nañ ko saafara xamal ni dañ ko saafara incha allah. macha allah jërëjëf euh, sëriñ Moustapha Sy borom sañ-sañ kon ñu ngi lay sant bu baax a baax te di la gërëm macha allah ci kàddu yi xam si ne am na solo lool te leer nañ wax dëgg yàlla képp koo xam si ne bëggoon na dégg déglu waxtaan wi xam nga ni euh, kii wax nii lu mu maîtriser la waaye lu mu jàng la macha allah kon képp koo xam si ne bëgg ngoo jot numéro yi sax xam naa dana affiché ci suufu écran bi incha allah 77 la 666 70 85 76 608 li wax ni ñi nga xam si ne ñu ngi bàyyi xel xidmatul xaddim ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen wax ni rek képp koo xam si ne indi nañ ko ci xidmatul xaddim ne seen xel daal ci moom te xam ni ku am xam-xam lay nekk kon ñu ngi leen di ziar baax di ñaanal suñ kilifa réew mi yëpp suñ borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi loolu te wér wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa